Kër Télé Futurs Médias di Adja Mampouse Cissé ñu ngi koy wax amin ci fu ñu nekk di ñuy tamit bu baax Abdou Karim Mangane di grand chef religieux madame Mangane Sadio madame Mangane Soxna Fatima ñooñu suñu ay xarit lañu sëriñ Mamadou Sougou Wadane yàlla na ko yàlla defal jàmm di ñuy tamit euh, Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane yàlla defal ko jàmm bu wér waaye tamit di ñuy baax cardinal Théodore Adrien Sarr bi nga xam ne nag moo jiitu jàngu bi jiitu jàngu bi yàlla na ko yàlla defal jàmm maître Fatima Fall di ko ñaanal jàmm tamit waaye di wax tamit euh, Euh, ki nga xam ne mooy tonton mag daaw am na lu mu defoon ci anniversaire bu ko tollantee dana baax ci moom ndax ba ko defee daaw ak ren gis na yokkute jëm ci moom ma koy nuyu de passage ci am mbégte léegi nag mbokk yi ki ñu dem seeti mooy Malick Gakou xam ngeen ne bureau politique bi bu ñu réunir ba pare ñoom waa AFP ci njiitalu Moustapha Niass dafa jël ndogal boo xam ne Mbaye Dione ak Malick Gakou nga xam ne ku leen tudd ci biir parti bi xam ne wax dëgg yàlla bu dee parti bi nag la xamal na bu ñu nekkul bopp ba ña ca fàllara war a ca tànk ginnaaw ya ñoom nag fekku leen fa kenn ki démb ca aéroport la ko journaliste yi ko moom Malick Gakou muy soog a ñibbi si ndax tal naa tontu warul tal tontu nañu seeti Malick Gakou bi nga xam ne moo fi waxoon ne fulla moo ko gën a fërin ba ki nga xam ne moom mooy suñu ministre ba njëkk ba Cheikh Tidiane Mbaye Abdou Mbaye daal di koy abal mu la moom tamit mu ànd ak fulam ak faydam daal di dem Malick Gakou <laughs> Malick ma nettali la <laughs> balaa kenn di la wax yaa ngi soog a jógee aéroport yow daal sa paa bi <laughs> sa paa bi tas na dëkk bi sa paa bi daal dafa bàyyi ba nga yolee ko rek mu def mu màtt leen xaw la am déet kaay xool wax ñu ne ndax màtt la war a du màtt <laughs> ah gàkku <laughs> eh ah gàkku kaay. bagage yi commencé jël est-ce que ñu commencé woote ñu commencé woote ah waaw journaliste yi ñoom fa dem fekk leen fa waaw na ngeen def maa ngi leen nuyu vraiment dama damay soog a wàcc euh, voyage mënuma taxaw di wax ndax euh, coono voyage bi moo ma jàpp euh, ngeen baal ma rek beneen yoon ma ma ma dem kër ga. waaye ñu ngi leen maa leen déglu. waaw. ma maa ngi nii soog a ñëw. waaw. Hmm? léegi ñu bëggoon a xam ndax yëg nga loolu wala yëgoo ko. waaw dëgg la vraiment dégg naa ko gis naa ko ci internet bi bi ma ko tàppee ci internet bi ndax dama tukki te dañu ko tukki da ngay ñaan jàmm sa ginnaaw fekk ko fa sa kanam tamit boo demee fekk fa jàmm waaye li nga xam ne gis naa ko ci internet bi lire naa ko gis naa commentaire yi waaye bu fekkee ne président Moustapha Niass moom loolu la doxalee dama na man balaa may jël benn engagement dana dem toog ba waxtaan ak moom wax ko li nga xam ne mooy sama xalaat ci mbir mi ndax tamit dañu ñëpp ay xale nañu te dañu am ambition ci réew mi ndax réew mi ak banlieue bi dafa nekk dëkk boobu xam ne bu fekkee dañu am ambition politique dama ne lu nekk mën nga ko njortal sa bopp moo tax kon yaakaar na ni balaa may jël engagement dana dem teg sama bagage ba dallu xool baax li nga xam ne mu laa def ndax man xam ne ci fulla ak ci fayda du ma dugg ci loo xam ne yu fi ñàkk fayda la kon monsieur Gakou dafa mel ni affaire bi li la wax touché na la trop non dama ne man Moustapha man man touché mu man waaye li ma la bëgg a mooy ñun ay xale nañu ñu ngi soog a juddu ay xale ndaw nañu waaye tamit xam nañ dëkk bi dama ne bëgg nañ dëkk bi bëgg nañ jàppale secteur bu nekk waaye dama ne loolu bu fekkee ne da nga am ay ambition yaay xam sa ambition ndax ambition pour yemale ko ci li nga xam ne moom sa objectif waaye man li nga xam ne moom laa bëgg ak li nga xam ne moom laa xam ak li xam ne moom xam ne muy fula ak fayda dama ne su ma joxee waxtaan président Moustapha Niass danaa ko laaj ne lu tax mu doxalee nii wala lu tax mu doxalee nii wala loolu mu doxalee na le wala mu doxalee na fula ak fayda ak fula dama ne moo gën lu am mais monsieur Gakou dañoo bëggoon a xam sa ambition sa ambition dañ bëgg xam ndax da ngay rester AFP wala boog da ngay jël sa parti bopp wala. non dama ne man mënu ma boo xam ne dafa leer waaye naa la xamal dara lii boo xoolee ci histoire Sénégal dafa mel dafay répété di répété waat di répété waat di am. yaa ngi dégg fii ci jamono PS amoon na fii ci jamono tamit Abdoulaye Wade dama ne amoon na ci jamono ñeneen ak ñeneen yaa ngi dégg moom li nga xam ne ñi nga xam ne ñooy sama samay parce que dama am les amis de Malick Gakou dama am les les les les les les troisième âge am na ñoo xam ne tamit dañuy dañ ma déglu dañ ma gëm dañ ma jàpp dañ ma topp dañ dañ bëgg te dinaa consulter ñi nga xam ne ñooy samay xarit dana laaj mbëri ñi dana laaj ñeneen ñi dana laaj sama mbokku dana laaj samay am jàmm samay askan samay mbokku laaj leen lan lañu gisee sama biir nekkin ci biir AFP loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a li ma ci mën a tontu mooy xam ne balaa may def dara dinaa laaj ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ma topp parce que man tamit gàtt gàtt gën gaa gàtt am na ñoo xam ne ñu sama ginnaaw ndax fula ak fayda nit moo koy tol boppam te moom président Moustapha Niasse fula lañu jàngal ak fayda kon bu ñu demee ba gis loo xam ne dafay xaw a nuru loo xam ne du fula ak fayda dama dañ taxaw wax ci dañ taxaw wax ci bonsoir monsieur Malgakou oui bonsoir c'est Pierre Da Silva de Afrique Info Afrique Info oui euh, monsieur Malgakou mais aujourd'hui est-ce que vous êtes prêt aller en propre, dans, dans votre propre candidature euh, Vraiment, je suis vraiment désolé, mais je parle de prendre des engagements qui sont des engagements spontanés. les gens vont dire que Malika a répondu à, l'aéroport de Dakar et sans savoir la situation. Et je pense qu'il est temps que montre que, que, aux yeux de tout le monde que moi je suis quelqu'un de humble, je suis quelqu'un De, de, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de fouleux, quelqu'un de fayda, quelqu'un de jom, quelqu'un de, de, de, de walo walo, quelqu'un de pété quelqu'un de pété Monsieur Malgakou, euh, on a vu sur, sur le net, hein, euh, vous vous entraînez, mobiliser les, les, les lutteurs, les trucs comme ça, vous êtes, vous êtes dans les lambeaux, dans les sports. Est-ce que vous ne faites pas votre campagne à votre succès. non je suis pas un président de lamb je suis pas président de lamb il faut pas coller lamb ak Malick Gakou dama ne Malick pas le lamb de grand théâtre Malick Gakou c'est pas les chansons dama ne peuple l'ambition des jeunes dama ni li moom la gàttal ci gàttal mooy Malick Gakou bu leen ko tëxalee ak lamb di ko loo xam ne dama ne Malick Gakou bëtam fi mu ko teg mooy fi nga xam ne nit ku baax ku nekk da nga ko teg ci biir a gënal loo xam ne mooy parce que yéen dama fële moo gënal yëfu ñàkk fayda. monsieur le président parce que li ma wax daal mooy monsieur le journaliste ce que j'ai à dire c'est il temps que je vous dis que ne mënuma jox gum benn engagement mais jàppale na ci kanam tuuti loolu gis man la dama ne Malick Gakou ngi ñëw dama ne daal seen kaw ku a na a daw ku ñeme na nga taxaw. Malika ku ngi ñëw dal seen kaw ànd ak ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañ leen di galgal taxu mbiir dama ne tarak ne woon tarak dama ne eh Malika fayda dama ne gàkku Mali dama ne yii bété bété dama ne Malika ku yii